ñu ngi lancé projet bu ñuy wax euh, Synergie de loolu la société bi tudd nga xam ne du ñuy jël euh, centrale solaire maanaam courant bi ñu ngi koy toggee mu jóge ci jant bi ñu koy jële pour mu nu mën ko togg dugal ko ci réseau Sénélec Sénégal yi jëriñoo ko ma làngoo nii ak meeru bokkal nga xam ne ci dëkkam nu koy def bokkal nekk ci wetu daggana donc loolu man dafay doon beneen kontaan ci man tànnuma ko waaye wolof yi di wax tombé moo waral ay gaaf comme mën nee naa Dagana laa juddoo donc may kontaan mu doon foofu mais aussi di gërëm euh, suñu partenaires yi nu àndal muy Chantal Charlotte ak équipe nga xam ni ñoom ñoo jógee ci dëkku tubaab yi ñëw ànd ak ay Sénégalais la ko ñoom indi seen alal def ci wóolu suñu réew ndax jàmm bu fi am bi ndax dal bu fi am bi ndax condition yu leen état bi offrir pour nu mën a liggéey am bénéfice ci seen liggéey nu nangu fi investir ndax du ñu jël toll ci 17 milliards di ko def fi nga xam ne yaakaaroon fa nii dina dina am rentabilité donc wóolu Sénégal ak wóolu Sénégal moo tax ñu ñëw fi def seen alal foofu centrale boobu nag dina changer dund waa Bokhol dina changer dund waa département Dagana mais dina changer dund waa Sénégal yu bare ndax lu tollu ci ñaar téeméeri junni nit dina ci mën a am muy deux cent mille yaakaar naa su ma juumulee dinañ ci mën a am courant dolli ci ñu ko amoon su ko defee comme courant moom mooy lu ñëpp soxla lu nu président de la république sasoon sas ko ministère de l' sas ko Senelec mooy nu fexe ba fépp fu mu mën a dem rek nu yóbbu ko fa en naa nuy xool nan nu ñuy wàññee njëg gi parce que ñu bëri wax nu ni jafe na cher na nu nangu ko mais lu ko cheral justement mooy lépp lu koy defar duñ koy jëlee bitim réew amul dara lu fiy jóge mais comme am nañu chance nag ci lu koy defar tey jant bi bokk na ci jant bi moom am nañ ko bu mu doy donc ay xarala yu bees la yi nga xam ne ay jumtukaay yu bees la ñun ñu ngi ci doog a dugg naam mais dina yeneen jéego yu ñu ci def ndax am na keroog centrale bu ñu def euh, meewaan tey ñu ngi def bii président de la république dégg ngeen ko keroog tey ba Ndiaye nee na nu ci yokkaat yeneen ñaar téeméeri méga ñaar téeméeri méga mooy tolloog euh, euh, fukki yoon li ñuy def nii tey bokkal fukki yoon ndax bii 20 la ba le 200 la 200 donc day doon 10 fois 20 pour wax ni donc yooyu yëpp su duggee. booleeg lu ñuy jëlee ci ci ndox mi muy euh, énergie hydroélectrique bi comme bu am bi mën Manantali am na bu ñu war a jël aussi Guinée si barrage yu fa nekk yi su ligne bi pare loolu yëpp soo ko dajalee day tax njëgu courant bi war a gën a mën a wàcc pour mu gën a mën a woyof ci nit ñi mais fu mu toll nii naam-naam wax dëgg yàlla fexe ba sénégal yi am ko moo gën doon sunu préoccupation suñ ko amee te coupure wàññeeku bu baax commencé na wàññeeku mais duñu bëgg mu gën a wàññeeku ndax fu nekk amatuñu trop problème production mais réseau yi ñoo màgget dafa yàgg kenn changé wu parce que wàllu production bi wax naa ko def nañ ci ay jéego ndax soo xoolee Sénégal bu nu jëlee indépendance ba 2000 lu toll ci juróom fukki mégawatt rek moom la ñuy nattee courant si si réew mi am nga jël 2000 ba 2012 daanaka lu xaw toll noonu nu nu am mais ren ci benn at rek nu dooree ko ci central bu nu inauguré bi keroog bërki dem ba ci Taïba Ndiaye Sénégal def na ñaar téeméer ak juróom fukki mégawat ci ci benn at donc lu nu def ci ay fukk ñaar fukki at wala ci fanweeri at ren def nañ ko ci benn at loolu day wane jéego bu kawe day wane jéego bu am solo li nga xam ne loolu yëpp day wane ni Sénégal mi ngi dox ñu ngi gën am yaakaar fu nu jëm ñame nun ko te ñu ngi gën am yaakaar di ñaan yàlla rek mu jàppale nu te Sénégal yëpp gën ko xam noonu nu gën a booloo nu gën nekk benn nu gën a gëm suñu réew pour yàlla gën nu gën nu jàppale